ñoom ñoo yor mbirum euh, lii tax wala lii lii li lii mën a nekk ci ñu wàññi ak li mënul nekk ci ñu wàññi muy importateurs yeeg exportateurs yi commerçant ak yu demee noonu mais ak lu mu ci munti demee li ci jot li ci am solo mooy jéem a xool mbirum wàññi bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, naka lañ koy ci yan anam lay mën a am ak aussi tamit naka la ñuy def ba ni muy arrangé ki nga xam ne moom mooy consomateur bi mën a arrangé ki nga xam ne nii moom tamit moom mooy kii dem di jëli produit yeeg euh, yu ni mel par comme ñun presque comme li ñu wax mooy que ne li ñu li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy jëfandikoo li ci ëpp dañ koy jéggaani di ko dem jëli feneen donc état mi ngi xool ci naka lay def pour mën a soulager population bi nga xam ne nii moom li lim ko wax mooy que ne dund gi dafa cher dafa war a wàññeeku waaye itam. Euh, rassurer ñi nga xam ne ni ñoom ñooy dem jëli produit yooyu muy importateurs yeeg commerçant ak yu demee noonu euh, ay waxtaan la nag te mënul nekk loo xam te ne lu yomb la euh, Ablaye wax na ko léegi léegi ñi nga xam ne ñoom jotoon nañu jënd seeni produit bu yàgg mënoo ñëw rek xëy ba un bonjour nee leen da ngeen di wàññi wala da ngeen di xool noo leen def pour mën a soulager population su boobaa dag leen di gaañ te ñoom it ay sénégalais lañu comme ñun. te di participer ci li nga xam ne nii mooy lii permettre pour que dëkk bi mun a mun a wéy seetaan naa lu yàggul dara benn émission ci benn télé kenn ci kenn ku bokk ci commerçant yeeg exportateurs yi xamal ne wàññi gi mënagul nekk jamono gi loolu la xamle moom nag mi ngi ci euh, euh, euh, secteur bi nekk ci acteur donc ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñi nga ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi bu ñu demee ba yaakaar ne wàññi gi mënagul nekk état dina prendre en compte lu mel noonu mais aussi tamit dina créer ay mécanismes yoo xamante ne mooy permettre pour que loolu mën a ne te biñ ko waxee tamit yàggul dara premier ministre génn na wax ne wàññi bi aussi tamit du nekkul loo xamante ne nii dafay effectif nii nii ci ci tembe tembe bi mënul nekk non seulement mënul nekk ci ñaari ci ci man laa yaakaar ci ñaari raison mooy déjà nguur gi mi ngi door a mi ngi mi ngi door a ñëw amaguñu. mais mise ci dossier yëpp teg ci aussi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon euh, wala sax ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi <laughs> ñoom jot nañoo def seen i def jot nañoo am seen i stock def euh, xam xam marché bi xam li fa ne aussi tamit xam jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy daj ci li nga xam ne nii mooy produit yi ñuy dem di jëli donc loolu ay waxtaan lay laaj waxtaan yooyu noonu xëy na peut-être fileeg ay diir dinañ ci jéem a ut ay solution solution yooyu nag buñ ci buñ buñ ko utee su boobaa incha allah yaakaar naa ne euh, li nga xam ne ni loolu la nguur gi bëgg muy jàppale askan wi pour que dund gi wàññeeku ñu mën cee jot bu baax a baax a baax parce que aussi tamit am na lu bëri loo xamante ne sax euh, kii euh, kii waxoon na ko ci mooy Aziz Ndiaye wax problème jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy am ñoom commerçant yeeg exportateurs yi ci bu ñuy dem di jëli produit ci. Euh, li nga xam ne ni mooy accords yi nga xam ne ni moom la dëkk yi ñu koy jëlee am mu nekk ay accords yoo xamante ni wala sax mu am ay mu nekk ay règles yu métti yoo xamante ne nii pour que ñu jëlee fa produit indi ko dafay dafay dafay dafay dafay jafe teg si aussi tamit dëkk yi nga xam ne foofu la ñuy jëlee produit mais dëkk yooyu ñoom ñoo ñu gën a sonn ah. ñoom ñoo ñu gën a ñoom ñoo ñu ko gën a soxla te teg si du ñun kese Sénégal ñun ñooy ñun ñooy jëli produit am na yeneen dëkk yoo xamante ne aussi tamit ñun ñooy ñooy ñooy ñoom la ñuy ñun la ñuy partagé ndoo euh, produit yooyu noonu li ci am solo mooy nag sànq Birame wax na ko mooy jéem a xool ak nawet gii di ñëw naka la ñuy def ngir dooleel yenn produits yi nga xam ne par exemple lu mel ni suukar bi lu mel ni ceeb bi lu mel ni diwlin bi mais yaa xayti mu laa loolu noonu yëpp pourtant dañ koy defar mën nañ ko defar fii fële ca euh, compagnie sucrière bi euh, bu bu bu te te nekk Richard Toll euh, vallée vallée vallée vallée fleuve Sénégal bi riz de la vallée bi nga xam ne moom la ñuy bay def nañu sax ay expériment expérimenté nañu sax ceeb bu neex boo xamante ne nii ñu mën nañ ko bayee fii ci Ziguinchor Sonacos pour suñu diwlin gi mais essayer de voir comment faire pour déjà dooleel ñi nga xam ne nii ñoom ñooy capitaine d'industrie yi pour que et aussi tamit dooleel société yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi ñoo nekk gum sur place parce que gis nga balaa ngay def booy def évaluation da ngay xool li fi nekk d'abord naka ngay def pour gën ko suqali après mën a jéem a xool naka ngay def pour jëli leneen et aussi tamit faire comprendre aux Sénégalais que euh, gis nga dëkk pour mu dox dëgg li nga xam ne loolu moo nekk ci dëkk ba loolu la waa dëkk ba war a jëfandikoo muy lan ceebu mbay mii nga xam ne ñi ci ëpp dañ sénégalais yu bëri buggu bugg bugguñu ko man xam naa koo xamante xam xam naa koo xamante ni day bayee day def euh, ceebu mbay bi da koy da koy da koy bay mais li mu am ci ay stock te mënul jeex man am na benn jour sax day saan jox na ma ci sax benn mais euh, boo demee di ko boo demee di ko proposer nit ñi sax dañ leen ah non ceeb bi moom wax dëgg fa yàlla bëgguma ko beneen bi laa bëgg donc il faut déjà il faut aussi tamit que mu am benn volonté boo xamante ne ni ci ñun ñii sénégalee yi volonté boo xamante ne ni dañuy mën a euh, euh, akimoo li nga xam ne moom la ñu moom téye ko ba pare di ko utiliser et après jéem a xool nu ñuy def pour wàññi li nga xam ne mooy exportation parce que ñu dëkk ci à chaque fois ci exportation gis nga Inde bi ñuy dem di jëlee ceeb yeeg demee noonu. ñooñu ëpp téeméeri junni yoon ñooñu mat nañu milliard milliard milliard dernier yooyu nga xam ne ñoom ñoo mm. dëkk foofu ñooñu mm. bu ñu bëggee lekk ceeb ñun kon du ñu lekk léegi nag mm, il faut ñun ñu changer suñuy habitude pour mën a accommoder wu ci li nga xam ne ni mooy réalité yi fi nekk et puis yaakaar naa dina permettre pour que ñu mën cee ñu mën cee génn bu baax a baax ci ci fànn yëpp nag li ñuy uti yëpp am na fi diwlin suukar ceeb lépp am na fi l'union l'union nationale de comité d'entreprise du Sénégal ay commerçant la ëmb ñu jeexal ak yow Birahim gis nañ ñu